su ñuy wax le système au Sénégal ñetti parti nous ñoom ñoo Moi, symboliser mooy Benno le PDS ak au Sénégal de Khalifa Sall donc ces trois parties là symbolisent le système au Sénégal te lépp lu au Sénégal nous ñoo ko en réalité vous vous souvenez ces ces mêmes trois partis nous ñoo retrouvé woon autour du dialogue et que dialogue bi li ko laloon effectivement moi fexe ba Ousmane Sonko du bokk ci élection yi képp ku taq ci Ousmane Sonko du bokk ci élection c'était ça leur objectif comme ça nous, nous mën a continuer di des di Sénégal di continuer de faire le nerf ci c'était ça parce que xamoon na ni eh, ki nga parti qui nga gêné c'était le PASTEF le leader politique qui nga gêné pour nous faire. def c'était c'est Ousmane Sonko ils ont tout fait pour que nous bañ beaucoup d'élections. ci mais quand il y a eu un retournement de situation malgré stratégie malgré système malgré pexe yi nga ko pour que lool bañ am euh, quand ils ont vu que la candidature de Bassirou Diomaye a été validée et que Pastef a eu au moins trois candidats loolu mo leen tiital loolu mo donc c'est ça qui a créé euh, un séisme donc au niveau donc de ces partis là moo euh, so xolé euh, ces mêmes partis qui euh, se retrouvent au niveau de cette commission là pour la candidature de Karim Wade euh, Après, ils ont un candidat. C'est pas, ça doit pas être leur problème. Ils ont déjà un candidat à Ils n'ont qu'à aller battre campagne pour lui. au Sénégal, ils ont déjà un candidat, Khalifa Sall. Il n'a qu'à aller battre campagne. Mais pourquoi ils veulent se retrouver donc nous ñetti parti pour créer une commission d'enquête pour arrêter le processus électoral donc là, dafay wane rek que effectivement ñoom seen un double. parce que un nëbboowuñu waxtaan nañ ci lépp loo xam ne euh, effectivement euh, ñu ngi koy amal ci bi la élection avant donc euh, loolu rek lay wane donc de ce fait xam na ne instant bi nii avec Bassirou Diomaye Faye ak stratégie yi nga xam ne Sonko teg na ko à la dernière minute xam na ni c'est fini pour eux parce que cette grande coalition là qui est en train de se former autour de Bassirou Diomaye Faye effectivement au soir de l'élection c'est sûr et certain que euh, Bassirou Diomaye Faye va passer au premier tour Nous xam nañ ko bu parce que sondage nous ñu yor wax na ko donc sénégalais aussi réerewuñ ko mbir donc ñoom nag ci situation où ñu ni mënuñ ci élection parce que parce que ñàkk nañ ko ñàkk nañ élection yi ba donc on va tout faire pour que processus bi arrêté donc nous nga effectivement ñoom ñoo waroon def recours su recours don am moy Ousmane Sonko mi nga xam dañ ko tere bokk ci élection légitime effectivement mais il ko que je ne suis pas le centre du monde il y a un candidat qui peut porter le projet PASSEF, donc nous ko ñëpp jàppale mu dem ma personne n'est pas important donc du coup ñeneen ñi nga xam aussi, aussi euh, mooy yeneen candidat, yi nga qui, effectivement a écarté injustement Nous, mënoon a def recours aussi Nous, ni ok puisqu'il y a un candidat qui a un projet euh, on peut s'allier aller derrière ce candidat là et que l'objectif moi, débarrasser wu ci Macky et son régime à képp donc aujourd'hui loolu nak tiital leen loolu jaaxal leen ñu ni bon puisque cette élection là pour eux c'est perdu d'avance élection qui est perdue d'avance nous ne ñu ni nañ ci le plus rapidement def seen benn simulacre de commission d'enquête boo xam ni euh, dañuy euh, bëgg objectif du lenn loolu faire fexe ba processus électoral bi bañ continuer parce que ce xoolee Macky Sall il a tout tenté en fait il a tout tenté dem si yàlla si fexe def na il a tenté le terrorisme, il a tenté la euh, euh, rébellion, il a tenté l'insurrection. Donc def les pour a am ay euh, au moins fondé ci reprise pour se retrouver au niveau des commandes ba affaire donc peut-être stratégie pour euh, rebattre carte yi pour jaxase carte yi pour que élection ba ñu mais encore une fois ñi ngi tegaat pexé bo xamné mo moo leen di dugalaat ci goudé comme ni leen yenen pexé yi dugalee ci goudé ba instant bi ni ni ni ni ni nii bi ñu lal aussi ça va être pareil parce que processus bi euh dul Macky Sall sax mënu ko arrêté donc le processus est déjà enclenché c'est fini donc euh, ñi ngi ci cappaandaw gi Macky Sall est un président sortant suñu duggee ci campagne donc il sera comme tout le monde d'ailleurs il n'est même pas candidat donc tous les candidats seront plus légitimes que lui n'importe quel candidat ci élection sera plus légitime que Macky Sall parce qu'il n'est plus rien donc il ne pourra pas prendre des décisions Il xam ne engager 18 millions de sénégalais amul ben ministre bo xamné man nga jël décision bo xam da fay engager 18 millions de sénégalais amul un directeur général bo mën def non amul une force de sécurité et de défense qui xamné man des nga jël ay décisions Il xamné ne da ko tek ci ci ci ci bëgg-bëggu Macky Sall wala ci bëgg-bëggu keneen pour engager euh, le sort de 18 millions de Sénégalais donc c'est fini pour eux parce que le timing est bon fi nga xam ne fa lañ defee mbir yi teg stratégie ba mu leer foofoo baax donc moo tax instant bii nii ñu jaxasoo moo tax ñu réer di tenter lépp donc mais c'est inespéré on va aller à l'élection inchallah le 25 février et que à midi on saura que euh, c'est fini pour eux donc na Sénégalais yi ñi nga xam ne jëlee guñ seen carte nañ ko jëli euh, te ñu fexe suñu xol yi euh, dalal ko te xam ni c'est fini donc ñu mën a naan café nañu naan café ñu mën a naan ataay nañu naan ataay ñu mën a naan njar nañu naan njar daras fanaanal am mat bu mat sëkk ak engagement bu mat sëkk pour sécuriser élection yi parce que loolu rek moo fi des mais tout le reste moom blabla la na leen bàyyi ñu continuer di wax mais c'est sûr et certain que le processus est déjà engagé te kenn ku dul Macky Sall sax mënu ko arrêté waxuma la moom donc incha allah euh, ce sera fini pour eux au soir du 25 février et que autour de la grande coalition de, de Bassirou de Maïfaï, bon, euh, les cartes sont déjà euh, jouées, quoi, c'est fini. Donc, diarna euh, tac,